te chaîne bi di tàmbali muy CTV euh, ñoo ma proposé ma def euh, jataay boobu ak yéen ma sawar ci loolu parce que ay partenaires lañu donc question bu njëkk bi Senweb posé ko jëm ci procès Bart bi li ma ci njëkk a tontu mooy ni euh, procès yi bëri na lool ci réew mi léegi te wax dëgg yàlla war nañ mën a doxal réew mi ba nga xam ni procès gaa du ñàkk te sax dafa war di am ndax léeg-léeg foog ñu dem fi mbaxane doone benn dëkk yi civilisé yépp di doxal démocratie di jéem a doxal euh, bonne gouvernance euh, dañuy def séparation de pouvoir institution judiciaire bi day am àqam euh, dossier bu fa dem ñu traité ko correctement kon loolu gis ngeen ko France ak États-Unis fépp dañuy def yenn saa ay procès yu metti yu gudd kon loolu dafa bokk ci démocratie bokk ci bonne gouvernance mais nag procès yi bu baree lool léegi ku sëqat sax euh, ñu citation directe la yóbbu la tribunal nangam ak nangam euh, téye la fa ay fan léeg-léeg euh, ñaareel ba homme politique ak femme politique yi man dama gis ne ñu ngi jël réew mi en otage depuis quelques années mën nga wax ni presque depuis régime Ablaye Wade quelque part tëjante daanaka lañ nekk di def ku ñëw ci pouvoir bi tëj sa morom. ku nekk ci opposition bi ne dañ maa bëgg a tëj euh, léegi nag pour man sax ñu ngi dem ci lu gën a doy waar mooy daanaka léegi ku am problème boo xam ni egg na justice kenn nangootul bàyyi justice réglé ko da ngay wut sa mbooloo dem ci média yi euh, fexe ba justice sax bañ a réglé problème bi su ko defee kon loolu mën na indi jungle mën na ni réew mu pëccëxoo bu tasaaroo euh, boo xam ni kenn dootu fa mën a wax ne république la kenn dootul mën a wax ne état de droit la euh, Sénégal su nekk nii daanaka mi ngi jëm foofu gis ngeen ni euh, surtout temps yi daanaka homme politique yi ku ci am problème euh, boo xam ne dafa war dem justice di nga lijjanti ba wax ne warul dem justice bu demul justice na rek ko ku koy lijjanti lu muy mujj doon mooy jaayante doole ku nekk woo say xale woo say mbooloo jox leen ay armes ñu génn ci mbedd yi di reyante yaakaar ma ne Sénégal Sénégal mérité na lu mel noonu ginnaaw bi ñu amee démocratie bu yàgg ginnaaw bi ñu amee institution yoo xam ne yu dëgër lañ donte woon nag li ñu def yëpp du lu parfait mais loolu amul fenn tey ji États-Unis tey jii France et cetera da ngay gis ñu def benn procès ba pare ñu génn nga dégg avocat bi daal di tegul fenn lii du droit jaaduwul nangam ak nangam ñu def recours soit ñu annulé ko wala sax ñu yokk peine ba et cetera et cetera wala ñu ne dañ ko calculer euh, lu tax ñu woo waa ji ci tel moment kon loolu daal laay wax ci procès Barth bi mais quand même je reste toujours le principe mooy que pour man justice boo xam ni taxu ko dox trop ba tey sax moom ma gënal ñàkk justice. kon pour man di nga institution judiciaire bi en tant que tell Sénégal amul justice séparation de pouvoir amu fi nangam ak nangam euh, am na lu ci nekk dëgg mais nag bëgg ko def benn principe ba léegi kon euh, institution judiciaire dootul am benn légitimité loolu c'est très dangereux kon loolu classe politique bi pour man waruñu yóbbu Sénégal ci. Euh, wàll boobu moo tax ku ci am dossier bu dem justice comme dossier Barth bi nit faatu na mais foog mu dem justice parce que quand même nit ku faatu benn mala bu faatu mala bu faatu sax man léegi incha allahu taala xaar leen ba sama association bi pare association pour euh, euh, protection du bien-être animal di ngeen ma dégg may dem justice ak ñoo xam ne dañuy toroxal mala waxuma la nit kon nag bakkan bu faatu mais su demul justice fan lay dem kon nag léegi magistrat yi tamit am naa message pour ñoom nañ xam ne am na crise de confiance bu am entre ñoom ak population yi parce que dafa am ay dossiers judiciaires yoo xam ni nit ñi dañu gis ne euh, niñ ko lijjante xaw na doy waar kon ñoom tamit nañu euh, góorgóorlu dem rek maa ngi dégg Gabriel Kane ndaw soosu mu wax loo xam ne gis naa ni rafetlu ma ko mais wax bu doy waar la te yooyu yëpp dafay bokk ci li ma wax nii mu wax ne la justice sénégalaise est complice de violences faites aux femmes au Sénégal ma wax bi na di complice mën naa sax nangu justice Sénégal dañuy bàyyi seen loxo wala dañuy woyefal ay violence yoo xam ni ci jigéen ñi la jëm ñu yóbbu ko ci ñoom mais justice sénégalaise la justice sénégalaise est complice je reprends ces mots est complice des violences faites aux femmes ma ne waa kook moom tam côté femme moo ko intéressé nee na justice bi complice lañ ñi nga xam ni politique ñoo leen intéressé dañuy wax ne justice bi euh, amu fi li ma nekk homme politique di di xeex ak Macky moo tax ñu bëgg maa jàpp Euh, même ki nekk tamit oustaz wala imam et cetera moom tamit suñ ko yóbboo justice mu ne diine la ñuy xeex moo tax ñu bëgg maa jàpp je crois que kon tamit nañ def attention magistrat itam nañ gën a def attention gën a euh, jël seen cër te xam ne ci séparation de pouvoir lañ nekk maanaam xam nga da ngay dégg souvent ñu naan ministre bi lii et mais magistrat bi ci boppam moo war njëkk a nekk sa propre conscience éthique daal ne ci séparation de pouvoir lañ nekk sama wàll ci république bi président Macky Sall moomu ko kenn moomu ko république moo ma ko jox damay atte dossier bi sama conscience li ma jox ak éléments yi ma am ci dossier bi lu la ci fekk fekk la ci pour man loolu ngay contribuer ci Sénégal jëm ci justice mais pas ah damay ragal ñu euh, affecté ma Kédougou damay ragal euh, ministre bi mere ma damay ragal président du ma jox mandat pour ma bokk après Union africaine ci magistrat yi wala nangam nangam kon loolu laa ciy tontu.